Dalena Giam, ak Sport, ci 221 Mame Birame Diouf moom jamono mi ngi wéy di wane mëninam ci championnat bu Turquie ak club bi di Hatay Sport ndax tey ji dafa marqué li nga xamante mooy onzième biom de bi nga ni doxoon na diggante un partout waaye ki nga xamante ni na ci championnat xamante ne mooy quatrième meilleur na moom itam ci championnat bu Turquie mooy kii di Demba Ba ji moo sauvé ñi nga xamante ne ñooy clubam ci Istanbul Başakşehir tey ji moom ki nga xamante ni mooy Demba Ba moo daal di égaliser ci match bi nga xamante ni amoon nañu ko keneen ku dugal ci championnat boobu ba tey wala ku amal passe décisif mooy ki nga xamante ni mooy Alassane Ndao mi nga xamante ni moom itam mu ngi en pleine forme ndax kat jamono yi bokk na ci joueurs yi nga xamante ni ñoo gën a décisif ci club bi nga xamante ni moom la ñuy wax Fatih Karagümrük tey jii dañoo match nii nag deux partout seen diggante ak Erzurum Sport waaye ki nga xamante ni mooy Alassane Ndao moo dal di joxe li nga xamante ni mooy benn passe décisif di deuxième bii bi nga xamante ni moo waral ba clubam bi nga xamante ni mooy Fatick Karagum rek égalisé ci match boobule jamono yi ci fàttali Alassane ndaw am na lu toll ci huit bi ci championnat boobule ak six passes décisives. Moïse Kean nekk attaquant wu Paris saint bi moom nag dañu ko dal di testé positif lii waral na ba du a bokk ci match yi nga xamante ni Paris Saint-Germain ko amal ci ñaari semaines yi jàpp nañu ne sax match bi ci gëna a ràññoo ko mooy diggante Paris Saint-Germain ak FC Barcelone di match retour UEFA Champions League bi jàpp nañu ne attaquant italien bi di Moise Kean moom dina ko dal di wute Lionel Messi moom nag mën na mu mën naa am mu des ci club boobu di FC Barcelone bu ñu sukkandikoo ci candidat bi nga xamante ne moom la ñu Juan Laporta bokk na ci nga xamante ne bëgg nañoo jiite club boobule moom nee na bu fekkente ne falu na am na ay pexe ngir téye Lionel Messi ci club boobule waaye daal nee na bu fekkente ne gars yi sàggan nañu ba faluñu ko rek nañ jàpp ne Messi moom dina génn FC Barcelone élection yooyu la ci fàttali mu ngi war a xew le 7 mars bi nga xamante ni moom la ñu dëkkmal transfert ki nga xamante ne mooy Youssef Annachiri nekk attaquant marocain bi nga xamante ne mu ngi toll ci vingt-trois ans nekk foofu la ci Séville moom nag kayiti xibaar yi fesal nañu ne Borussia Dortmund jamono yi ñu ngi dox ci ay mbiram ngir bëgg koy yóbbu foofu lee gannaaw bi nga xamee ne kayiti xibaar yi fesal nañu ne Dortmund ñoom jàpp nañu ne amoon na dinañ ñàkk seen attaquant bi nga xamante ne mooy Erling Haaland li waral na ba ñu ngi ut ki nga xamante ne moo ko war a remplacer ci club boobule jamono yi ki nga xamante ne mooy Youssef Annachiri nekk foofu la ca FC Séville mooy ki nga xamante ne bëgg nañu koy yóbbu foofu la ca Dortmund ngir mu war a remplacer ki nga xamante ne mooy Erling Haaland werden. Gareth Bale moom kayiti xibaar na benn at ak ay weer ci contrat ak ak ñii di waa Real Madrid Bale dërëm ko dal di desal daal du ko may Real Madrid gannaaw bi nga xamee ne kat bokk na ci ñi ëpp li muy ndax 700 000 moom lay fayeeko chaque semaine bi nga koy xayma daal ci kayiti xibaar li ñu fisal 30 millions d'euros moom ki nga xamante ni mooy Gareth Bale Real Madrid war nañu koo fay ci benn at bi nga xamante ni moom la ñu dëgmal.